alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma amma baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyu di ziar di ndokkeel ci weeru koor gi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen di jéggalu ci yéex agsi bi du yéex ak génn yéex a la ndax tali bi ak samedi bi weekend bi tali bi dafa xat lool ñu ngi ciy jégalu bu baax euh, di nuyu tamit mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci bërëb bi di taxaw fii ci wàllu jàngale ak yar di woote ci lislaam muy masjid bi ak markaz bi di markazul falaax bu Pikin suñuy mag ak suñuy xarit suñuy wëllëre ñoo fi nekk ñu bokk liggéey bi Euh, li nga xam ne moom lañ sàkk woon pour ñu waxtaan ci thème bu am solo la thème la boo xam mën nañ ko waxtaan ci jamono ju nekk waaye tamit mën nañ ko waxtaan ci weeru koor ndax bu ñu xoolee jàppante diggante këru dëgg ak këru caaxaan dafa yàgg te loolu coobare yi borom bi subhanahu wa mooy li yàlla waxal ne wala yazaaluuna muxtalifin wa lidalika xalaqahum mooy yàlla dafa nit ñi ñu wuute huwa alladi xalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min dafa sàkk nit ñi am ci ñoom ñoo xam ni dañoo weddi am ci ñoom ñoo xam ne dañoo gëm bi loolu nag ñaari kuréel yooyu amee ci kaw suuf ba léegi ala kulli xaal jàppante dafay am am benn rapport de force boo xam mooy am ci ñaari kuréel yooyu bi nga xamante ni yàlla yebal na yonente bi alayhi salatu wasalaam makka mu tàmbali di woote ci lislaam woote bi nekk lu tumuranke comme ni mu ko waxe woon ne badal islaamu gariban wa sa yaudu gariban kama mu tàmbali ci tumuranke tumuranke boobu dafa feeñoon ci néewlu ñi nga xam ne ñoo ko topp ñi nga xamante ne ñoo ko gëm mën koo dimbali ci daaw bi ndax dimbali yàlla daf ko waxoon ne ko huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil yàlla moo la dimbalee ndimbalam moo la dëgëralee ndimbalam waaye tamit moo la dëgëralee ñi nga xam ne ñoo la topp ci ñi la gëm kon ñooñu dëgër laay la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bi ñu néewee loolu tamit dina ci mën a protéger mën a defendre daawam moo tax mu doon dem sax ci ñoo xam ne gëmuñu yàlla naan leen kan mooy jug protéger ma man yamnauni xatta uballiga kalimata rabbi kan moo mooy protéger ba ma mën a jottali kàddu sama borom subhanahu wa taala di ko wax ci ñoo xam ne gëmuñu kon li muy wane mooy ne am na lu mu soxla woon ci kàttan gu naturel boo xam da koy topp te loolu yàlla la sopp ndax law yashaau llahu lan tasara minhum walakin li yabluwa baadakum bi baad bu sooboon yàlla mu wàccee yonent bi moom kenn yàlla jël ko may ko ndam ci kaw ñépp soxlawul kenn jug di ko jàppale kenn di ko xeexal waaye yàlla subhaanahu wa taala mbiru diine épreuve la ko def test la ci nit ñi ndax ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuun mooy nit ñi nga xam ne ñoo wax ne dañoo gëm diine ñoom la yàlla di wax ne diine ngi noonu yéen ko moom seen alal la défendre leen ko ngir xool lan la leen jaral bu ko defee ñuy kërti kërti di sonn di jaayoonteeg seen borom ci seen alal ak ci seen bakkan bi yàlla waxoon ne inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ndax dina leen jaral ñu futteeku góorgóorlu dimbali diine am déet wa illaa bu yàlla wàcce woon ay malaaka ñu ñëw dimbali diine may ko doole ku jóg di ko gàllankoor ñu faagaagal la kon bu boobaa ñépp bàbbeeku ñëw ne gëm nañ ndax yëf yi day yomb torop bu ci nattu bi dañee rek yëf yi day yomb moo tax foog nattu bi nekk ci natt boobu mooy tax yàlla segg ñi dëgg ñi dëggu ak ñi dëgguwul léegi bi nga xamante ni yonent bi alayhi salatu nekk na foofu di woote ci lislaam ñu sonal ko lool fitnaal ko di ko bunn xatal ba mu waxoon ay jullit ne leen nañ dem làqatu ji xabasha ñu dem làqatu foofu foofa lislaam amu fa ngëm yàlla gu newu fa christianisme moo fa nekkoon donte safaanoonu ak lislaam mais comme moo tane li ñuy jànkonteel màkk loolu lañ tuddee irtika boo xafit dara rey ni yonentu bi alayhi salaatu salaam jëfe loolu te loolu daan na ko jëfandikoo lu bëri ci siyaasam ci doxalinam mooy ñaari yàqute yu teew nga xool bi gën a oyof nga def ko ngir mucc ci bu mag bi yàqute bu mag bi mooy nekk biñ nekk ci ñoo xamante ni ci seen noon yu gën a rëy lañ bokk ndax la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lilladina amanu alyahuda walladina ashraku ñi nga xam ne ñoo gën a noonoo ñi gëm yàlla mooy juif yi ak ñi nga xam ne ay animiste lañ jox dañuy jaamu leneen lu dul yàlla ñi ci tane mooy chrétien yi comme ñoom ñoo tane te am na buur boo xam ne bu maandu la du bàyyi ko du seetaan kuy tooñ mu ne dem leen ngeen toog foofu ngeen mën a jaamu seen borom ba yàlla def li muy def noonu la def yonent bi alayhi salatu wasalaam ba yàlla di ko may muy gën a am kàttan di gën a am kàttan ba dajeek benn kuréel goo xam ne ñu ngi jóge woon Yasrib ñëw agsi mu dégg leen ñuy wax ci guddi gi mu dem dab leen ne leen ndax pare nañ pour déglu ko ñu daal di koy ne waaw lan nga soxla woon mu jàngal leen alxuraan waar leen delloo leen ci yàlla ne leen yàlla moo ko yebal ci nit ñi pour mu woote ci lislaam bi ñu ko dégloo ñu daal di comprendre message bi ndax li tax ñu comprendre ko mooy ñoom dañoo seen différence ak Makka ci chance bi ñu amoon ñu jóge woon Yasrib mooy fi tudd Medina ginnaaw bi mooy dañu nekkoon ak ñoo xam ne ay nit yi ahlul kitaab lañ ay nit yi téere lañ nit yi téere yooyu dañ daan wax ci mbiru yonent boo xam ne dina ñëw ci mujjug jamono war a nekk ci juif yi bu ñëwee dinañ def lii bu ñëwee mooy li yàlla wax ne wala walamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima maahum wa kaanu min qablu yastaftixuuna ala alladina kafaru fa lamma jaahum ma arafu kafaru bi mooy ne ñoom dañoo jàppoon ne am na yonent buy ñëw boo xam ne ci ñoom lay génne ñu doon tëkku ñi nekkaloon ca mas yasrib ca madina naan leen yonent boobu bu ñëwee dinañ leen rey rey bu méttee métti génn leen madina yàlla def ñoom bi ñu ñëwee dégg yonent yàlla bi alayhi salatu wasallam dina woo ci lislaam ñu ne kii la ñu yahud yi doon wax bu ñu ci kenn jiitu ñu daan di gëm mu ne leen nañ nëbb seen lislaam ñu dellu madina bi ñu delloo at mi ci topp ñu ñëwaat yokk at moomu ci lañ yokk ñëw waxtaan ak moom ci condition yu mën a génnee Madina Màkka ñëw Madina ñu fat ko défendre ko aar ko ci lépp loo xam dañ ciy aar seen seen njaboot aar ci seen bopp yonent bi alayhi salaam jaayonte ak ñoom ci bayatul aqaba ginnaaw loolu ñu dellu ànd ak Musab ibnu Umayr ñu waajal ñëw ak yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam génn Màkka ak jullit ñi lu bari ci seeni alal waa Màkka nangu ko tey sax lenn ci seen njaboot ñu génn dem am sax ñoo xam ne dañu leen téye mënuñu dem hijra ñu dem madina toog foofu bi ñu fa toogee di fa dund ay jafe-jafe yu metti ndax yoruñu seen alal génn nañ leen seen dëkk bi nga xam ne fa lañ nekkoon ñu sonn fa lool di muñ ba yàlla def ci deuxième année bi ci gàddaayu yonent bi alayhi salatu wasalaam benn bis yonent bi alayhi salatu wasalaam dégg ne waa Màkka am na lu ñu jël ci seen alal jox ko kenn ci seen kàngaam yi di Abu Sufyaan mu yóbbu ko Sham mooy lu mel ne Syrie fi ñuy wax Syrie ak Palestine pour dem jëndali ji leen ay marchandises ñëw indi leen ko Makka mu ngi ci yoon bi di ñëw te yoon bi muy jaar am na benn carrefour boo xamante ni ñoom bu ñu jógee Madina mën nañ dem dab ko dog dog a dogaale ko foofu yonente bi alayhi salatu wasalam woo saxaaba yi ñu ñëw mu ne leen yëg naa ne waa Makka am na seen benn caravane boo xam ne jóge na Cham mi ngi jëm màkka léegi lan ngeen lan lan ngeen xalaat ci ñu dem dab ko nangu seen alal jooju ngir jël ko delloo ko ci jullit ñi nga xamante ni dañ leen a génne woon ci seen alal ak ci seeni kër bi mu waxtaanee ñoom ci loolu ñu d'accord ci loolu mu ne kon ku mu jàppandi ci yow nga mën a génn génnal ñu dem kon waxu leen woon ne leen nañ dem xeexi ji waxu leen tamit na ñëpp génn dafa wax ne ku mu jàppandi ci yow nga génn loolu moom moo tax ñi génn bari ñetti téeméer. ak fukk ak ñett wala fukk ak ñaar wala fukk ak juróom-ñaari nit ñoo génn loolu bariwul lim bu néew la 72 ci ñoom nekk ay muhaajirun ñi ci des nekk al ansar boo ko séparé waate tamit da ngay wax ne 61 ci ñoom nekk ci ñi nga xamante ñooy aws ñi ci des ñëpp xasaraj lañ bokk bi ñuy génn tamit liñ yor ci ay waruwaay bariwul ndax ñaari waruwaay rek lañ yor ak Euh, ñaari waruwaay yi ñu ko yoroon mooy saad ibnu ubada wala xamatuma ban ci saad yi la saad ibnu abi la ak al aswad ibnu ibnu qays am na ci kenn ci al miqdaad ibnu al aswad yaakaar kenn ci miqdaad yi la imma miqdaad ibnu al wala miqdaad ibnu amr moom moo yoroon beneen waruwaay bi li ñu yoroon ci ay gëléem 70 gëléem lay tollool ñu daal di génn yoruñu ngànnaay yoo xam ne dëgg-dëgg xeex moo ko tax a jóg ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ña ca des toog ca Madina ndax dañ jàpp ne mission bi ñuy dem du xeex kon bi ñu génn Madina génnuñu pour dem xeexi ji dañ génnoon pour dem daj dabi ji alal joo xam ne Abu Sufyaan yor na ko jëm ak moom Màkka ñu nangu ko lu mel noonu li ci njëkk ci jàngat bi ñu ciy def mooy décision bu mel noonu imaam moo ko mën a décider moo ko mën a jël maanaam jëf jëf ju mel noonu yonent bi alayhi salaatu salaam def léeg nga dégg yenn kuréel yi di wax ne. lu tax kon jullit ñi duñ jékki-jékki tànn daal di tendre embuscade ñoo xamante ni seeni noonu lañ dal ci seen alal mais loolu imaam moo ko décidé yonent bi alayhi salaam dafa am ñaari maqaam dafa am maqaamul nubuwa ak maqaamul imaama dafa am taxawaay boo xam ni cëru yonant bi ko yàlla def la yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana foofu noonu suñu royuwaay la ci lépp loo xam ne day koy def lu fekk gisuñu luy wane ne lii exception la moo ko jago jagoo duñ ko ci roy beneen bi ci des mooy nekk bi mu nekk imaam bi mu ñëwee Madina taxawal fa nguur goo xam ne da doon jël ay décision politique di àtte ci nit ñi ci seen alal ci seen euh, bakkan ci seeni deret seen der di taxawal ay àtte yàlla subhanahu wa taala di déclencher ay xeex wala muy def ay pacte yoo xamante ni bi digganteem ak ñoo xam ne ay noonu jullit ñi lañu cër boobu bu nit ki yorul nguur nekkul autorité ci lislaam mënu ko def lu mel noonu mënu ko def mënul ne yonent bi def na ko mën tamit dama koy ko ci roy jihaatoon na ak waa sàngam surtout li ñu tuddee jihaadu talab ndax jihaad ñaari jihaad la jihaadu dafa jihaadu talab nga ni da ko ciy roy mënoo ko ci roy parce que amuloo maqam bu la àggale ci pour nga mën ko cee roy bis boo demoon nag ba yor autorité boo xam ne jullit ñi jaayonte nañu ak yow jiital la ci seen mbir waa boobaa mën nga ko roy ci politique am boobu kon ci loolu ci tur boobu la ko yonent bi alayhi salatu wasallam defee ñu gis tamit li nga xamante ni mooy ghazwatul badr ghazwatul badr dañu gis ne yonent bi alayhi salatu wasallam da ko gérer ci façon boo xam ni subhanallah boo ko jàngatee da ngay waaru ci ni mu meloon ñëwul woon benn yoon di wax jullit yi ne leen nañ leen def lii mais chaque fois daf leen di solliciter consulter leen laaj leen seen xalaat ci lan lañu war a def jamono bi ñuy gën di dem daf leen laaj bañ d'accord ak moom ci dem bi ñaareel bi mooy ñi dem mooy ñi ànd ci bëgg dem ne dañuy dem waxul na ne ñëpp dem loolu ci li gën a tax ñu am ngañaay ci li leen yàlla dimbale loolu bokk na ci mooy consultation boobu mu doon consulter nit ñi ndax nit loo xam ne dañ ko ci laaj xalaatam mu gis ci boppam da ciy dem ba jeex da ci day jàpp ne ci la bokk da ciy yëg boppam da ciy gis boppam mais loo xam ne keneen moo ko décidé à sa place moom al toppe rek la kenn laajoo ko ci kenn dégluwu ko ci léeg-léeg engagement bi dafay des bu fekkee nit da koo jiite te cër bi mu ko war a jox ci di ko déglu joxu ko ko loolu day indi ay frustration day tax nit ki day mer ndax kilifa gi mën nay eh, décider dara di ko def waaye moom ni mu ci war a àndee jàppale ko ci dafay des ndax gisu ci boppam parce que dafa gis ne kii daal décision boppam la bu mu décider rek man laaju ma ci sama xalaat loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam defu ko ci tàmbali bi la leen laaj ñu génn daal di jëbali Badr diggante ci booru tefes ci yoonu ndox mi boo jógee Cham nekk ci diggante Makka ak Madina ñu daal di génn jubali foofu bi ñu jubali jee foofu Abu Sufyaan bi muy dëpp dafa nekkoon boroom xel moo xam ni ci ñi gënoon a yeewu gënoon a muus ci kilifa kàngaami araab yi bokkoon na ci jamono jooju nit ku yeewu la moo tax ñu ko doon jox responsabilité bu mel noonu ci Quraysh ndax yu mel noonu daawuñu ko jox n'importe kii li muy ñëw ci yoon bi yépp mi ngi gëstu ku mu romb mi ngi lay laaj ku mu romb mi ngi lay poser ay question ndax gisuloo ay nit ndax defaloo lii ndax nàngam ba benn yoon mu daje kenn laaj ko ndax gisuloo nit ñoo xam ne xamoo leen kooku na ko xañ kay gis naa ñaari nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla xàmmeew ma leen ci gox bi xam naa ay étranger la ñu war a doon mu ne ko anañu mu ne ko daal gisoon naa leen ñu campé fële après ginnaaw bi dem nañ mu ne ko baax na Abu Sufyaan daal di dem ba fi ñu daloon mu daal di ñëw xool bi mu xoolee gis ne ay gëléem lañu waroon fi gëléem yi tëdd seen dem àll yi ñu fa bàyyi mu jël ko toj ko boxam ko daal di koy toj xool lan la ñuy dundee mu gis ne li ñuy dundee ay doomi tàndarma yu ñu toj la ñuy dundee mu ne ñi yasrib lañ jóge ma dina lañ jóge mu ne jullit ñi la ci la yabal benn waay bu tudd dam-dam ibnu Saalaba wala dam-dam daal di koy yabal ne ko na daw dem màkka wax leen ne jullit ñi ñu ngi ci ay tànkam di ko jéem a daba dab dogaale ko ngir jël alal alal ji mu yor nañ gaaw ñu génn ñëw dimbali si ko kooku daal di takk daw dem jëbali ju màkk mu daal di changé yoon bi nga xamante ni ci la jëloon daal di gën a làbbali noppalootul gën a gaawantu gën a accéléré doxam waaye loolu nga xam ne am na ci dox di doxalinu Abu Sufyaan mbiru yàlla la du yeewoog te Abu Sufyaan rek ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa diggoon jullit ñi bi ñuy génn benn ci ñaari option mooy ne imma ñu daje ak alal ji nga xam ne Abu Sufyaan yor na ko ñu jël ko te loolu moo leen gënaloon wala moo gënaloon seen majorité mais yàlla moom loolu gënalu ko ndax alal jooju yitteelu ko am na leneen lu ko yitteel beneen problème bu mu bëgg a régler mooy seen rapport de force seen diggante ak Makka seen diggante ak Quraysh seen première jaamaarloo bu ñu war a jaamaarloo ak Quraysh ginnaaw li leen Quraysh def yépp teg leen ko ci ay jafe-jafe génne leen ba noppi am empêché yeneen arab yi yu ci bëri ñu gëm Quraysh ñoo nekkoon sabab nekkoon gàllankoor moo tax bis jour bi yàlla defee Màkka ubbeeku Quraysh dugg ci lislaam ci la arab yépp dugg ci lislaam Quraysh moo doon principal problème bi moo tax seen première euh, dajale daje loolu yàlla da ko da ko bëggoon da ko bëggoon subhaanahu wa taala moo tax yàlla ne yàlla moo leen digoon benn id yaidukum allahu ixda taifatayni annaha lakum yàlla moo leen digoon ne benn ci ñaari kuréel yi di ngeen ko am waaye yéen li ngeen bëggoon mooy ngeen am bi nga xamante ne bi yorul ngànnaay wa tawadduuna anna gayra zaati shawkati takunu lakum li ngeen bëggoon mooy am bi nga xam ne yorul ngànnaay mooy bi yor alal ji waaye yàlla moom li mu bëggoon mooy régler seen problème ak Quraysh féttéerlu Quraysh ak gàllankoor ñi gàllankoor l'islam ak ne bu ngeen continuer toog Madina yaakaar ne Quraysh bàyyi nañ leen ci seen aafiya da ngeen di nax seen bopp il faut que ngeen jaamaarloog ñoom ba ñu jànge ci loolu tax ñu bàyyi leen ngeen continuer ci seen lislaam maanaam bu Badar amul woon Quraysh dina jékki-jékki dal ci kaw jullit ñi dal boo xam ne soo moytul da leen di massacrer mais Badar moo leen stoppé moo leen freiné ndax bu ñu fàtte ne génn bi yonent bi sa salaam génn Màkka ñoom rëcc lañ koy tuddee rëcc ndax bëgguñu woon mu dem ndax xam nañ ne bu demee dina uti ji doole te ëllëg dina nekk problème ci ñoom moo tax ñu bëggoon ko téye loolu moo indi topp biñ ko topp ba ci xaaru Hira di ko jéem a jàpp jël xaalis bu bari teg ko ci neexal ne ku leen ko indil dinañ la ko jox nit ñi génn di ko wër ci àll bi loolu yépp lan moo ko waral mooy dañu doon bañ mu dem parce que xam nañ ne bu demee tôt taar dina am kàttan biñ yégee ne dem na ba àgg Madina tamit bu xew-xewu Badar amul woon bis dina ñëw ñu déggaat Quraysh ñoom jullit ni te boobaa mberteel lay doon ci ñoom boo xam ne day fekk préparé wuñ ci woon seen bopp kon Badr am na lu ci yàlla bëggoon a régler moo tax bi yàlla defee li nga xamante ne bi mooy ayir bi di caravane bi rëcc na leen coow li àgg Makka yéefari màkk yi bi ñu ko déggee dañ ne xaaral ñu dem duma ji ñii yar leen teg leen ci yoon ñi xamuñu seen bopp maanaa dañoo génn ak benn prétention ndax am na ñu nekkoon màkk ñu leen doon xeeb di leen stigmatiser jàppee leen ay gone ay jaam ay nit ñu tekkiwul dara mooy genre langage yi ngay faral di dégg dañ koy jëmale ci ñi nga xam ne léeg-léeg ñooy topp mbaax ndax léeg-léeg ñi nekk ci beneen côté bi yàlla da leen di faral di jëy ci wàllu àdduna ñu nekk majorité léeg-léeg yore alal ak yu mel noonu moo tax yàlla subhanahu wa taala doon wax yonent bi alayhi salatu salaam naan ko ñooñu nga xam ne ñooy boroom yére yu ràpp yooyu di ñëw di toog sa wet di jàng seen diine di bëgg seen boroom bu leen dàq te bul teggi sa bët ci ñoom di ko teg ci àdduna wala tatrudi alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal ashiyi yuriduuna wajha yuriduuna wajha wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaati addunia wala tutic man agfalna qalbahu an dikrina wattabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta loolu yàlla moo ko jox xamal ko ne ko ñoo ñu nga xam ne ñooy borom euh, garambu bu yu mag yooyu ñoo ñu borom manto yu rëy yooyu di la romb di sol muy watatiku nit ñi topp leen yàlla amul ci ñoom soxla ñu ñàkk solo ñi ñuy xeeb di leen tuddee ay jaam ñu sol ay yëre yu ràpp ñu ñëw toog sa wet di jéem a xool nu ñu def ngir am ngërëmul yàlla yàlla ñooñu moo leen gënal kon bul teggi sa bët ci ñoom ak sa yitte ci ñoom di ko teg ci ñële ndax ci àdduna rek la lay yóbbu loolu yitteelul yàlla kon ñooñu ñu doon xeet ca màkka ñu dem ñu dégg na ña ngay laal ci seen am nañ fit gu toll ne dinaan dañuy jéemalaal seen alal ñu ne ñii nag xamuñ seen bopp xaaral ñu jóg dem lijjant ji leen occasion mi ngi nii lii lañ doon xaar tey ñu xam ñun ñooy ñan waaye fekk boobu am na lu ñu réere mooy mbiru yàlla mbiru suñu borom subhanahu wa taala mbiru suñu borom lañ fàtte te loolu liñ ciy jàngee bokk na ci mooy léeg-léeg yàlla bu bëggee daaneel koo xam ne dafa naagu da koy jëy da koy jëy ci wan ko boppam ba mu teg boppam fu mu àggul ñaareel bi tamit mooy da koy ñàkkalal solo noonam ba mu xeeb ko te loolu yàlla moo ko def mooy ne ñoom yàlla dafa wane woon ñi nga xamante ne ñoo jullit ci seeni i bët ne dañoo tuuti lool ñàkk solo lool mooy li mu waxoon ne wa yuqallilukum fi ayunihim li yaqdiya allahu amran kana mafula mooy na yàlla dafa am benn stratégie bu mu def ci bi mu bëggee ñaari kuréel yi daje li ci njëkk mooy id yurikahum allahu fi ayunikum qalilan mooy na yàlla subhanahu wa taala dafa wan jullit ñi ne leen ñi di ñëw bëriwuñu bari bu am solo matuñu benn lim bi mais néew googu yàlla def ci bëtu jullit ñi mu jëm ci ñi dul ñi dul jullit di waa Quraysh c'était pour may leen fit pour ñu bañ a yokkat pour ñu pare pour taxaw ndax yàlla xam na ne dina compenser déséquilibre bi am ci ñaari mbooloo yi dina ko compenser ak ndimbalam ndax moom yàlla am na kàttan ci jël benn nit dimbali ko àdduna yépp takk takku taxaw ci kanamam mu duma leen yàlla mën na loolu kon yàlla xam na ni ëpp gi ñu leen ëpp du nekk problème fi muy nekk problème rek mooy mu déstabiliser leen ci seen wàllu njàmbaar ak ci seen fit foofu rek lay nekkee problème pour nag mu dindi loolu ba mu bañ a nekk luy néewal doole jullit ñi yàlla néewal leen ci bëti jullit ñi waaye ñële li tax yàlla néewal jullit ñi ci ñoom c'était pour ñu gën a naw seen bopp gën a jaagar jaagari li abu jahl wax ne dinañ dem ba àgg suñuy jaam di ñu wayal ñuy rendi suñuy suñuy suñu suñuy gëléem di lekk suñu yàpp di naan suñu di naan seen sàngara di di tëgg seeni tabala duma duma jullit ñi toog fa nga xam ne fa lañ leen duma ñetti fan soog a ñibbi si màkk ba ñépp xam ne duñ seen moroom bi ñu génn màkk loolu la wax ba ñu xam ne duñ seen moroom nañ leen dem daal di laxas gaa yépp ne leen nañ dem ñi génnul ci màkk bayiwul xëy na banu adi yi ñoo génnul ñi ci des yeneen ku kër yi ci des ku nekk jël say waxambaane say ponkal ñu daal di génn dem abu lahab bokk ci waaye abu jahl moo leen jiite ak kuréelu kàngaami màkk yi ku mel ne ubay umayyad ibn xalaf kon loolu loolu stratégie wu yàlla la loolu lu ñu ciy jàngee bokk na ci mooy bu rapport de force bi amee léeg-léeg diggante ñaari bloc yi këru dëgg ak këru caaxaan am na sew-sew yu ci yàlla di def yoo xam ne boo ko comprendre ci commencement bi mën na tax yëf yi bañ a leer sa bopp mais des fois il faut que yëf yi ñëw ba jàll ba pënd bi wuri nga soog a def ay jàngat xool mbir mi xam ne yàlla doxalinam doxalinam lu xereñ la doxalinu yàlla lu xereñ la léeg-léeg xeebeel boobu ak ñàkkal solo boobu jubluwaayu yàlla lay doon ndax bëgg naa jey beneen kuréel ga ca des ba ñu naagu yàlla ñëw ak bu boobaa day tax duma yi day gën a metti noonu la yàlla def si diggante yi jullit yi ak ak ak ñi nga xamante ni ñooy Quraysh kon néewal bi yàlla néewal seen lim ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñetti téeméer fukk ak juróom-ñaar loolu coobare yàlla la yàlla mënoon na def ci ñépp bàbbeeku génn madina dem waaye bu boobaa bu kuréel gi bëree mu nekk kuréel gu bëri dafay changer rapport de force bi dafay changer jaamaarloo bi day am yeneen mbir yu ci dugg bokkat na ci li ciy dugg mooy li leen daloon Xunayn Xunayn dañoo yonent bi alayhi salaam dafa tijji Màkka nit ña tuubee fa ay wàcc bees ñëw ne ko ñoom ñoo ko doon sonal ndax lu mu leen di def daleen di day fayu wala da leen di baal mu ne leen idhabu fa antumu tulaqa jéggal na leen gaa yépp bàbbeeku dugg ci lislaam ñu ne nag ah waa hawazin ña nga fay taif di eh, giir bu rëy ci giiru araab yi dajale nañ seeni àndandoo bañ a nga taxaw di xaar jullit ñi nee nañ ñoom bu su ñàkkee fayda ba Muhammad ak ñi mu àndal ñëw di di tijji Màkka ñoom moom bu ñëwee fi la leen di fekk ña nga taxaw di ko xaar ñoom nee nañ ñi ngi taxaw di xaar mu ànd ak jullit ñi jëm dem dem ci ñoom waaye nag ña ca ànd mooy wàcc bés yooyu di soog am na loo xam ne dëgëragul ci ñoom benn ñaareel bi mooy bariwaay bi yëm na leen ba kenn ne al yawma lan nuxlaba min la am ku ne tey de kenn duñu gañe ndax dañoo néew waxul kenn duñu gañe ndax amuñu ndimbalu yàlla de kenn duñu gañe ndax dañoo néew cib lim kon nga gis ne ña ngay focaliser wu ci loo xam ne du foofu mooy li nga xamante ni mooy matériel di matière sabab la yàlla mooy al musabbib yàlla mooy musabbibul asbab yàlla moo nekk ci ginnaaw loolu jullit bi bu loolu leeree ci boppam ngëm-ngëm gi nekkul ci matière bi nekkul ci matériel bi ci sabab bi mais ngëm-ngëm gi ci musabbib bi la nekk mooy yàlla bu dëgëree ci jullit jullit bu mel noonu moo mën a tijji àdduna jullit bu mel noonu moo mën a am benn force spirituelle bu nekk ci moom boo xam ne amul force bu mën a taxaw ci kanamam te ñi yonent bi alayhi salaam formé woon loolu moo nekkoon ci ñoom boo gisee li ñu réussir ci tijji àdduna ak seen kuréel ni mu néewee woon ak empire yi ñu daaneel est ce que xam ngeen ni yonent bi alayhi salaam amuloon armée ñu bëri duñ ci rendre compte amuloon ay soldats ay baykat ak i sàmmikat ak i commerçant ak ay pères de famille. la daan def bu xeex jotee mu jël leen ñu dem ñu dem xeexi ji nekkuñu woon armée de saxaaba yi nekkuñu woon armée boo xam ne dañ leen di former suba ak ngoon di leen entraîner ñuy sol ay tenue nekk ci seeni campement di di di ki déedéet dañoo daan xëy nekk ci seeni yitte di ko doxi di jàng xam-xam di nekk ci jàkka ji di julli buñ ne jihaad ñu dem bocc seeni jaasi na ko acca te ku ñu dajal duma la ñan lañ doon dajal ay armée yoo xam ne ay centaine de milliers de militaires de soldats yoo xam ne dañ leen di entraîner tàggat leen for former leen ba da nga leen tuddee ay force spéciale jox leen ci ay waruwaay ak ay tenue ak ay protection loo xam ni saxaaba yi xalaatuñ ko woon sax ba di ko am te malgré loolu saa bu ñu jaamarloo ñu duma leen lan moo defoon seen force nga yaakaar seen bëriwaay la wala seen entraînement la wala seen ay ngànnaay la amuñ ci woon dara ci loolu dara amuñu ko woon ci loolu li nekkoon seen force dëgg-dëgg mooy li nekkoon ci seeni xol ngëm-ngëm googu ñu amoon ci ne mbir mi du sabab bi mu sabbib bi la te mooy yàlla jaayante boobu ñu jaayante woon ak yàlla force boobu moo def seen mbir moo tax keroog Musaylama bi muy dof doflu Musaylamatal kaddaab bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam faatoo mu yaakaar ni mën naa ñëw nag léegi dajale ñi ñi muy dajale ñépp ci ñi nekkoon ci àll ba te xamuñu lislaam mu nax leen ba delloo leen ci kéefér dajale kuréel gu rëy rëy ne léegi nag dafa bëgg nag dal ci kaw jullit ñi léegi mooy yonant waxtoom jot na keroog bis bi mu fénqaloo ak jullit ñi ci la soog xam ndëkk dëgg dëgg ñii ñooy ñan dafa gis gaa amee di daw xel yu rëy te ñoo gën a bëri fuuf mu ne leen waaye yéen lan ngeen di daw ñu ne ko ñun daal ñii ñuy xeexal ñi ragaluñu de ñun dañuy bàyyi moytandiku ku la jam ak ku la lii ak ñoom dañoo bëgg sax far dee ñoom moo tax mënuñoo jaamaarloog ñoom ñii kenn mënut a xeex ak ñoom loolu lañ ko wax te loolu moo ko moo ko loolu moo ko nax saayal kon ñooñu la yonent bi alayhi salatu wasallam préparé ñooñu la formé loolu nag foog jullit ñi delloo si waat loolu fekk ñi ngi yaakaar ne suñu bari waay 2 milliards ñu naan ñu ay nangam milliards fiti lépp nekk benn poussière boo xamante ni amul benn njariñ li yonente bi alayhi salatu wasalam bal innakum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl waxoon na ne yushiku an tadaa alaykum al umam kama tadaa al akalatu ala qas'atiha qalu amin qillatin nahnu yawma idin ya rasul allah nee na des na tuuti xeet yi dañ leen di ñëw di leen paacoo di ñëw di leen séddoo comme ni nga xamante ni bi noonu la ay bàyyima ay bukki di jóge ci àll bi di séddoo benn gàtt ñu ne ko ndax dañuy néew moo tax ñu ñuy def loolu mu ne du ngeen néew da ngeen di bari waaye bari gu amul solo la bari gu amul solo ndax xol yi dëgër kàttan force nekku fi force nekku fi bu ko defee seeni noonu lu ngeen bari bari duñ leen wekk duñ leen respecté duñ leen ragal kon li nga xamante ni dëgg dëgg dëgg moom mooy li liñ mën a waxtaan ci xaswatu Badr lu bari la mais aspect bi ci am solo dëgg mooy ñi génn ñan la ak naka la leen yàlla génnee yàlla subhanahu wa taala li ko yitteeloon du jullit ñu jëlaat ay alal dem li ñàkk ko ci ñetti fan ñeenti fan mu jeex mais li mu bëggoon mooy rapport de force bi changé Makka xamaat seen bopp Quraysh xamaat seen bopp delluwaat seen place loolu la yàlla bëggoon arab yi dégg ko dégg ne ñaari kuréel yi fénqaloo nañ bu affaire bi tasee nouvelle bi tas nit ñi yëg ko nit ñi dinañ respecté jullit ñi parce que état bu bees la buy soog a installé wu Madina mooy capitale am yonent bi nekk fa ak mbooloo mu néew ci jullit ñi il fallait que ñu am lu ñu dégg ci seeni i jaloore pour nit ñi respecter leen prendre leen au sérieux bokkaat na ci ñooñu leen di gën a respecter juif yi nga xam ne seen i dëkkandoo lañ nga xam ne ñoom ay borom mi nas nocc lañ ay complotiste lañ wala bokk ay comploteur lañ du ma wax ay complotiste ay comploteur lañ ay borom mi nas nocc lañ yoo xam ni waraate rek lañ mën awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum war rek lañ mën bi nga xamante ni yàlla def na waa Màkka takk jël lu mat junni xam nga fay waxoon ñetti téeméer lañu ñu waxoon ak fukk ak lu teg ñu jël junni ak ñetti téeméer ci seeni soldaar ci seeni waxambaane ak ay kàngam ñu takkal leen daal tegu ci yoon bi jël ci li nga xamante ne yoroon nañ ko ci ay fas rek ëppoon na téeméer di dem li ñu yor ci ay gëléem kenn xamul nu mu toll daal di tegu ci yoon bi di ñëw di tëgg ka wayaka jaagar jaagari ne léegi nañ leen dem xool jullit ñi nga xam ne ñoom ñooy jéem a naan dañuy laal suñu alal Abu Sufyaan bi mu rëccee ba yëg ne rëcc na jullit ñi dootuñ ko dabati dafa jëlaat keneen yebal ko ne ko demal nga dabi ji waa Màkka ne leen jaratul ñuy génn mën nañoo dëpp ndax léegi rëcc naa bi mu demee àgg ci ñoom daje ak armée bi wax leen ko Abu Jahl ne ko déedéet génn génn bu génn bay dem di dellu duñu ko def dinañ dem ba àgg lijjanti lijjanti problème bi gis nga mbiru suñu borom subhanahu wa taala yàlla def ci kàngaami Quraysh yi nga xam ne ñoo génnoon malgré ñoom ndax am na si ñoom dañu génn malgré ñoom am si ñoom ñoo xam dañu ne daal comme mbir mi ni la demee ñoom dañuy dellu ci loolu la lu nee nañ lu tollook ñetti téeméer dellu mu des junni ñu ne ñoom dañuy dem ndax Abu Jahl moo leen campagne propagande leen li Abu Jahl def tamit ci xaswa bi ci xeex bi ba mu am am na luñ ciy jànge mooy chaque fois ci kuréel yi nga xam ne ñooy faral di fetteerlu dina am ay nit yu cay nekk yoo xam ne ñooy faral di xamb xamb taal bi dee leen ko seetlu bu baax chaque fois am na ñoo xam ne bu problème amee rek del déglu chaque fois ñu ngi ci ñooy nekk ci suuf di ëf safara bi pour muy tàkk ñooy nekk suuf di instrumentaliser nit ñi pour ñuy dal ci ñeneen wala pour ñu am pour ñu faagaagal waa diw pour ñu wax leen lii wala ñu def leen lii loolu mooy kuréel gu nekk am na saaxibuhum saaxibuhum saaxibahum mooy ñi yàlla wax ne fanaadaw naadaw saaxibahum fa taataa fa aqar xawmu saalix bi yàlla génnee gëléem gi te ñoo laajoon saalix ne ko ne leen indil firnde bi wane ne yàlla moo ko yónni mu génnee leen gëléem gi ci montagne bi ne leen gëléem gi yàlla moo leen ko jox muy màndarga yàlla bàyyi leen ko muy naan ci teen bi bu naanee bis sàngam ngeen naan ngeen ñëw wëgg bis sàngam mu gi ñu ne ñun daal dañoo ñàkk fayda gëléem nekk ci dëkk bi di bokk ndox mi ñu nañ ko rey kenn ñemew koo laal lan la yàlla wax fa naadaw saaxibahum ñu ñëwoo seen waaja baatu saaxibahum jooju seen waaja mooy chaque fois dina am benn waay joo xam ni moom li nit ñi ragal a wax wala ñu koy wax ragal a def moom mooy ñëw def ko loolu daanaka kuréel gu nekk dina ko am kooku moo ñëw daal di koy cor dagg tànk yi ñu rey ko kon mooy l'élément déclencheur chaque fois dina ko am ci xew-xew bii tamit am na ci abu jahl lépp moom la moo ko manigancé ndax moo nekk fa wax leen propagande leen bañ génn ndax am na haine bu amoon ci l'islam ak ci yonante bi alayhi salatu pour moom occasion teew na léegi pour mu profité ci loolu exploité ko def ay réglement de compte ñan la utiliser ñoo xam ne sax ñenn ñi seen yoon nekku ci te ñàkk nañ ci seeni bàkkan bi ñu demee ba war a dellu au lieu mu delluwaat ci raison xelu ne ah fitna bi kat jaroo ko suñu alal la woon rëcc na naa bàyyi déedéet dafa continuer persister mais boobu mbiru yàlla mbiru yàlla la mbiru suñu borom la bi yàlla defee ñu ñëw jullit ñi jiitu leen ci place bi fi ñu leen jiitu mooy Badr Badr nekk benn bërëb boo xam ne ay montagnes ñoo ko wër am ñetti port yoo xamante ni fi ngay duggee li ci des lépp montagnes yi ñoo lay wër foofu la yonent bi alayhi salatu buggoon bëggoon Abu Sufyaan far mu rëcc waaye yonent bi alayhi salatu wasallam bàyyiwul boppam bi muy dem ba xam ne Abu Sufyaan rëcc na te waa Màkka génn nañ ñi ngi ñëw dafa daal di xam ne kon yëf yi changé na léegi am na leneen lu bees lu am ci ni yàlla doxale yëfi yi waxul ne damay dellu de waa Màkka ñi ngi ñëw nañ leen dellu déedéet li mu gis mooy ne xam na ni ala kulli xaal yàlla li mu bëgg ci ñoom mooy ñu ñu jaamaarloo ak Quraysh ndakate kon génn bi leen yàlla génne Madina ci sababu caravane bi loolu mun naa wax appaala rek bu leen yàlla wanoon mi ngi mel ne yàlla wan gam wanoon lim yeer ba Muusa bi mu ko bëggee woo wax ak moom musaa li mu la soxla woon safara la soxla woon yàlla jaare ko ci li soxla waaye bi mu ñëwee joxu ko safara li mu yoru xol la ko jox mooy safara bi nga xam ne moom la soxla woon joxu ko ko leeru xol la ko jox ñii tamit alal lañ soxla woon joo xam ne alalu àdduna la yàlla jaare leen ci loolu ne leen benn kii ngeen ne la caravane ngeen ne la alal ju bëri ngeen dem leen ba ñu génn ngir loolu yàlla puus loolu indi leneen lu loolu solo fuuf te mooy jaamaarloo bi yonente bi moom loolu leeroon na ko alayhi salatu wasallam leeroon na ko ci boppam mais dafay jëfe chaque fois benn principe mooy shura bi yàlla wax ne wa amruhum shura baynahum ak li mu wax ne wa shawirahum fi l amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah yonente bi alayhi salatu wasallam bi mu ne xam loolu dafa dajale jullit ñi ne leen Quraysh génn na ñi ngi ci yoon bi di ñëw léegi lan ngeen gis waxoon waxoon na ak yéen ba ñuy génn Madina ne leen ci caravane bi lañ jëm ba ngeen ànd ak man ci loolu caravane bi rëcc na léegi balaa may ñëw di dem di sumb xeex sama diggante ak Quraysh dama leen di laaj lan ngeen gis Abu Bakar jug ne ko li nga xalaat rek loolu lañuy def loo ji wax rek loolu la def mu ne ko baax na daal di koy sant gërëm ko Abu Bakar toog mu waxaat ak saxaaba yi ne leen lan ngeen gis ci mbir mi ñu def ko Omar jug waxaat la même chose mu ne ko baax na waxaat ba mu yàgg Euh, miqdaad ibn kenn ci miqdaad yi xamantuma ci kan la imaam euh, miqdaad ibn amr la yaakaar naa miqdaad ibn amr la jóg daal di wax ne ñun de yonent bi alayhi salatu loo ñu def loo ci mbiru diine ji dinañ ko def ndax dañoo jaayanteeg yow ci diine te duñ la wax mukk li nga xam ne banu israil waxoon nañ ko Muusa ne ko idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaacidun demal yàgg sa borom ngeen xeex ñun ñoo ngi toog fii di la xaar boo ngeen xeexee yàgg sa borom ba lijjant yi yi ponkal yi nekk ci dëkk bi bu ngeen leen lijjantee ba noppi ñun ñu soog a dugg waaye nga bëgg ñoo duggloo ci biir dëkk bi xam ay ponkal la fi nekk duñ ko def yahudi yi loolu la ñu waxoon Moussa mu ne ko ñun duñ la wax loolu foo dem ak ñun ñu dem fa ak yow daal di toog yonente bi alayhi salaam continué waat jullit ñi wax leen ak man lan gis fekk na ñi wax ñëpp ci muhaajiruna yi lañ bokk ci la kilifay yi ansaar yi comprendre ne wax leen ak man wax leen ak man bi ñoom la bëgg a déglu seen kàddu ci la Saad ibn Muaad di sayidul ansaar sayidul xasra jóge ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mel ne ñun nga bëgg ñun nga bëgg wax ñun nag ngay junj ci wax ji pour ñu wax ak yow ci la saadu jóge daal dina ko nag ñun bañ a jaayanteeg yow jaayante woon ak yow pour rek ñëwal Madina ñu défendre la Madina lii wane yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu nekkee woon. subhaanallah modèle boo xam ne mbiram dafa doy waar bi mu leen di laaj noonu di leen laaj bëggul teg ansaar yi nga xam ne ñoo ko dimbali fat ko ci condition yoo xam ne situation yoo xam ne dafay compliqué bëggu bëggu leen ci dugal ndax bi ñuy waxanteeg moom màkka mu jóge màkka di ñëw dañ ne ko boo nekkee suñu dëkk dinañ la protéger boo ñëwee madina dinañ la fa protéger mais mission bii mu jël nga xam ne moom moo ko jël dugg ci donte jurit ñi ànd nañ ceeg moom ñoom xëy na waxante woon ak moom ci yu mel noonu léegi comme dem na ba conflit nar a am jaamaarloo nar a am ay bakkan mën naa rot il fallait que mu xam ñoom lan mooy seen taxawaay buggul rek ñu dem noonu malgré ñoom ànd ci loo xam ni xëy na convaincre leen bugguñ ci woon dem mais bañ nañoo gànt buggul loolu dafa bëgg a déggee ci ñoom lu dalal xelam ne ñoom lii nii engagé wu nañ ci de leur propre gré ci loo xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko mën a décider ci seen bopp nekkul ne moom moo leen ci forcer. Saad ibn Mu'adh jóg wax ak moom xamal ko ne ko boo xuusoon ak ñun géej gi géej gi boo ko xuusoon ñu xuus ko topp la boo fi jógee woon takk jëm ba barkul xamaat ca njombaxtalu yaman fa gën a sori ci ko suuf nañu nañ leen fa dem ñu dem fekk ji fa demal foo jëm ñu topp la koo jokk ñu jokk ko koo dog ñu dog ko koo xeexal ñu xeex ak moom koo jàmmool ñu jàmmoo moom bi koy bi mu waxee loolu nag yonente bi alayhi salatu wasallam daal di kontaan kanam gi ubbeeku ci la wax ne kon léegi dimbalikoo leen yàlla te ngeen préparé pour jàmmaarloo ak gaa yi ñi ngi ñëw yàlla wan na ma seeni duma ba fi nga xamante ni fa la ñuy daanu ñenn ñi mi nga xamante ni seeni kàngaam lañ ne dinañ leen rey ci xeex bi te fa ñuy daanu sax fañ leen di reyee yàlla wan na ma ko alayhi salatu ban ban leader moo ñemee war ñemee wax loolu ay nitam ban général moo ñemee taxaw di wax loolu ay nitam ban général yonent bi alayhi salaam changé completement nekk général moo doon imam ba nekkoon ca jàkka ja di jiite nit ñi di julli ci ginnaawam muy taxaw guddi fi la di jooy waaye gis nga bi mu taxawee fii général la nekk stratège la leader la alayhi salaatu wasalaam loolu bokk ci facette yi gën a am solo ci wàllu personnage yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy com complet bi mu complet woon ci lu bari foo ko rek fekk ko mu àgg ci niveau boo xam ne doomu aadama yi séenuñ ko ci ci la yonent bi alayhi salatu xam ne ay moyens dañoo limité wu il faut que mu jëfandikoo ay taktik ndimbalu yàlla dina ñëw waaye yàlla du indi ndimbal bi ci façon boo xam ne day ñëw yéen ngeen dem toog ci ca kër ga mu ne malaaka yi dem leen xeex ak gaa yi faw yéen tamit ngeen jàpp ci noonu la ko yàlla di doxalee ndax malaaka yi bi ñu ñëwee jëmmi nit lañ indi am na mandarga yu leen naam saxaaba yi xàmmee waaye terewul ay jëmmi nit lañ indi te loolu loolu lu ñëw la ndax yàlla subhanahu wa taala bi mu wax ne ittaqu lil muminina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaafin min almalaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatuukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi xamsati alaafin min almalaikati musawimin wa ma jaalahu llahu illa bushra wa li tatma inna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indi llahi alaziz alxakim mooy ne malaaka yi yàlla wax ne dinañ ñëw naam yàlla digg na ni dina indi li mu malaaka waaye loolu dafay dalal seeni xel rek ndax déséquilibre bi am ci mbooloo mi ngeen xam ne am na tamit ñu leen di jàppale waaye ndimbal dëgg ci yàlla lay jóge mooy li ma doon wax sànq ci sabab ak musabbib bi nga xamante ni mbir mi demee na noonu yonentu bi alayhi salatu wasallam waxtaan ak jullit ñi ci guddi gi ñu daal di ne nañu dimbalikoo yàlla ñu tëdd ñu xaar bu ëllëgee ñu jaamaarlu ak ci loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam anticipé na ñëwu Quraysh yónnee ay nit ñu espionnel ko pour xam seen lim ñaata lañ ñooñu bi ñu leen di espionné dañ leen a dem xool leen ci kaw pour jéem a xam ba xam dinañ mën a à peu près ñaata lañ biñ demee jàngat leen xool leen xool fi ñu campé xool ñaata tànt lañ am ñaata lañuy rey par bis ñaata ñaata cin la ñuy togg par bis loolu yépp ñu jël information collecté ko indil ko ko loolu di wane ne alxarbu xudaa di wane ne xeex stratégie la yonent bi alayhi moo ko wax mooy ne jullit nekkul ku yàccaaral koo xam ni xamul dara yeewul ci àdduna day bàyyi noonam di ko salfaañe di ko def lu ko neex sa lislaam ni mu la yaree boo jàngee yonent bi alayhi salaam histoire ak histoire ay geeram di nga xam ne da daan jël ay matuwaayam da daan jëfandikoo espionnage ak contre espionnage du espionnage rek mais contre espionnage da ko doon jëfandikoo yonent bi alayhi salatu wasalaam bu daan génn kaana ida ara an yaxzuwa gazwatan warra bi gayriha bu daan génn war a jëm ci noor bi buy génn madina ci est ci ci ci sud bi lay jël lay jëm pour bu amee ay espion yu koy xool du ñu xam fan la jëm bu demee ba ci àll ba soogoo def benn détour contourné soog a dem jël yoon bi mu bëgg a jël pour tromper espion yi nga xam ñoo koy espionné loolu contre espionnage la naka noon tamit danaan yebal ay nit ñu dem di ko xoolal noonam pour mu xam leen mun leen a teel a préparer ndax sa noon boo ko xamulee da lay bett sa noon boo ko xamulee da gaaw a jekku moo tax kon jullit dafa war a yeewu ci àdduna yeewu ci li dox ci àdduna yeewu ci ñi nga xam ne ñooy noonu lislaam yi di ubbi bëtam di xool li ñuy nekk ngir muy mën a jël ay matuwaayam ba nax yi ñuy nax manipuler biñ ñuy manipuler jekku biñ ñuy jekku bu dañul tamit mu wàññeeku bu dañul mu wàññeeku loolu la imaam ibnul qayyim wax ne ñooñ ñooy ñi ëpp xam-xam ci nit ñi bi muy wax ci yàlla wax ji mu wax ne wa nu nufassilu l ayaati wa li tastabina sabila al mujrimin nee na nit ñi ku xam lu baax rek la ku xam lu bon rek ku xam lu baax mu ëpp ci moom ak tuuti ci lu bon ak koo xam dafa xam lu baax mu leer ko xam lu bon mu leer ko nee na kooku mooy ñi ëpp ci xam-xam ci nit ñi mooy xam lu baax mu leer ci boppam comprendre ko pour mën koo jëfe xam safaanu lu baax pour mën koo moytandiku ak ak mën koo moytandikuloo nit ñi moo tax Omar ibn al-Khattab doon wax ne lislaam dinañ ko yàq bis bu demee ba ñuy dund ci lislaam xamuñu dara ci ceddo xamuñu ca la ñu nekkul ci lislaam nekk nee na boobaa lislaam dina yàqu loolu bokk na ci tekki ni ñuy tekki waxu Omar ibn al jooju kon yonente bi alayhi salatu wasallam espionné na leen ba xam ne seen nombre daal xëy na mi ngi àgg ci côté mille fa lay àgg alayhi salaatu wasalaam jullit ñi daal di fanaan bi ñu yeewoo mbir am mooy ne dañu wax ne yàlla dafa def seytaane comme ñee la jàppale te nee nañ sax bi nga xamante ni dem nañ bay xalaat ci war a delluwaat ndax abu sufiyaan yabal na nit mu ne leen rëcc na jaratul ñuy ñëw mën nañ dellu abu jahl wax ak ñoom nee nañ seytaane dafa ñëw jël cëru waraqa genn góor boo xamante ni benn sage bu ñu xam boo xam ne ñépp respecté nañ ko mu jël jëmmam ñëw na leen man seenub dëkkandoo la xam naa ni tey jii moom seen mbooloo mi génn nii kenn mun laa xaaliba lakumul yawma min annaas wa inni jaarun lakum kenn mënu leen a gañe ku ngeen dajal di ngeen ko duma li leen kii wax bu ngeen déglu ko dem leen ngeen jaamaarloo ji ak seen noonu yële li jënti leen ndax bu ngeen delloo lii ndax bu ngeen delloo laa daal di yàq seen xel loolu tamit ñu ciy déggee pexewu seytaane moom ak ay gaawam saa bu ñu amee occasion pour dal ci kaw waa dëgg saa bu ñu am occasion pour néewal doole dëgg duñ ko rate benn yoon taxawaay boobu seytaane taxaw nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jamono ju nekk ñenn ñi bu ñu gisee benn occasion bu am boo xam ne yaakaar nañ ne jaamaarloo mën na ci am diggante kërug dëgg ak kërug caaxaan dañ naan occasion la boo bu mu leen rëcc ndax am nañ benn haine bu ñu am bu jëm ci ñi nekk ci dëgg boo xam ni lu ñu bëgg rek mooy néewal leen doole ak euh, ak mbugal leen nasalullah salaamata wal aafiya bi yàlla defee ñu fanaan nee nañ seytaane foowe ñu bari ci ñoom ndax li tax ñuy tuddee foowe mooy ixtilaam mooy nit ki tëdd nelaw gént am lu génn ci moom man yu génn ci moom loolu yonente bi alayhi salatu wasallam tuddee woon na ko foowe bu seytaane di foowe xelu nit ndax moo koy wan ci gént lu ko yóbbu ci loolu moo tax mu ne woon moom loolu du ko dal ndax li tax du ko dal mooy non seulement yàlla sàmm na ko ci seytaane ba mënta àgg foofu ci moom mais daf doon wax ne tanaamu ayni wala yanaamu bi ay bëtam ñooy nelaw mais xolom du nelaw bi ñu yeewoo loolu nekk benn stress source de stress ci ñoom nekk lu leen stressé ci la fekk ñu yeewu ak janaaba ñu bari ci ñoom nekk ñu ñu laab nekk ñu ñu set ñi ngi war a dem ci xeex ak seen noonu beneen bi ci des mooy fi ñu occupé woon ci Badr fi ñu taxawoon côté bi ñu positionné woon di xaar yéefar yi ñu ñëw dafa nekkoon suuf soo xam ne suuf su nooy la buñ ci taxawee déplacement bi du yomb ndax da ngay sa tànk day enfoncé wu boo ci dëggee sa tànk day dugg te loolu da lay diisal da diisal yow yeexal sa déplacement yeexal déplacement wu sa waruwaay yàlla def lan yàlla daal di wàcce taw mu taw taw bu mettee métti taw bi taw ci seen kaw laabal leen ci sobe bi nga xamante ne nekkoon na ci ñoom beneen bi mooy suuf si nga xam ne nekkoon na loo xamante ni lu stable la ndox mi stabiliser ko mu dëgër daal di nekk genre kekk boo xam ne boo ci taxawee dootoo am benn problème contraire bi am ci fi nga xam ne fa la Quraysh war a installé wu fa la ñu war a taxaw foofu kekk la woon ba mu tawee mu nekk fu glissant nekk foo xam dafa ratax boo ci taxawee da ngay am problème da ngay bëgg a daanu loolu ndimbalu yàlla la wala ndimbalu yàlla. loolu di wane mbiru suñu borom subhaanahu wa taala bu nammee dara dafay jàppandal sabab yi tax loolu am bi nga xamante ni loolu am na yàlla subhaanahu wa taala wax ne moom moo wàcce ndox ma ci yéen ngir mu laabal leen ngir mu setal leen dindi sobewu seytaane boobu mu defoon ci yéen dëgëralee ko seeni i xol dëgëralee ko tamit seen i tànk wala yu bi bihi al daam mu tudd ay tànk ba léegi loolu bi mu amee terewul yonente bi alayhi salatu bi mu waxtaanee ak saxaaba yi ci wàllu fan lay taxaw naka la ñuy positionné woo alxabaab daf ko wax ne ko man de su ma sañoon du ñu taxaw avant ñuy àgg ci ndox mi ndax foofu dafa amoon ay teen nee nañ sax teen yi moo tax turu badr bi ndax ka moomoon teen ba moom moo doon badr nee nañ moo tax ñu tuddee foofu badr dañuy dem ba àgg fi nga xamante ne bi mooy ci ndox mi ñu dox digganteem ak ñi nga xamante ne bi ñooy Quraysh ci la yonent bi alayhi salaam nekkoon nañ dem positionné wu avancé ba nga xamante ni ndox mi dafay nekk seen ginnaaw ñu dox digganteem ak Quraysh nga xam duñ mën a am accès ci ndox mi buñ buñ buñ bëggee naan duñ mën a naan nga gis ne kon teel a àgg biñ teel a àgg ba njëkk a jël seen position ci fi ñuy dal loolu daf leen a privilégié daf leen a may euh, doole ci kaw seen i noonu beneen bi ci des mooy seenu néewaay ni ñu taxawee ak ni ñu positionné par rapport dafa dindi néewaay bi maanaam dafa tax néewaay bi ndax tey fi mu nekk nii boo jëloon vingt personnes ñu war a xeex ak deux cent personnes ci benn néeg boo xamante ni ñaar fukki nit rek ñoo ci xaj deux cent personnes yi dootuñu am njariñ ndax deux cent yëpp mënuñu duggandoo di xeexandoo dix ñooy mën a dugg ci ñii dix dugg ci nii est-ce comprendre nañ bu baax maanaam bu boobaa kon deux cent yi la war a xeex ak vingt yi suñu moytul vingt yi mën nañ leen duma. loolu kon day wane ne kon lieu bi nga xam ne fa la mbir di am ci ni ñuy positionné woo ak ni ñuy mën a jaamaarloowee dafa am lu bëri lu muy changé ci équilibre bi ci wàllu nombre bi ci mooy ci lim bi dafa am lu bëri lu muy changé moo tax stratégiquement ne yonente bi alayhi salaam placé jullit ñi par rapport ak milieu bi ak li leen wër ci ay montagne dafa am lu bëri lu mu changé ci ni leen yéefar yi ëppee du jeexital ci jaamaarloo bi bi yàlla defee li nga xamante ne bi moom mooy xeex bi tàmbali ba am duñ ci taxaw trop ci xeex beeg na mu demee ku rey diw diw mi ñu rey ala kulli xaal xeex nañ ak seeni noonu malaaka yi wàcc yore ay eh, imaama amaim mu yore ay eh, kaala yoo xam ne kaala yu weex la ay jaasi yoo xam ne jaasi yu weex la di dóor dóor boo xamante ni ay coupe chirurgicale lañ doon couper dañuy dagg mu mel ni laser moo dagg dagg boo xam ne duñu dóor dóoraat bu ñu dóoree dafay nekk benn dagg bu jub bu nekk boo xam ne da xam ne lii nit defu ko ci loxo yeeg ci ci ci loos yi ak di jàpp ay nit am na kenn koo xam ne ginnaaw bi bi mu tuubee dugg ci lislaam daf ne moom bokk na ci yéefari màkk yi nga xam ne keroog Badr defoon nañ ko prisonnier mais moom li ko wér te wóor mooy ki ko jàpp takk ko ak ki ko yóbbu ci ci ci jullit ña bokkuñu ki ko jàpp takk ko keneen la koo xam ne xamu ko ku def benn kaala bu weex moo ko jël takk ko jéngu ko bàyyi ko fa dem kenn ci jullit ñi romb ko ñu takk ko jéngu ko ci la ko jàpp yóbbu ko ci jullit ñi mu ne moom leer na ko ni kooku du nit kon malaaka yi am kenn ci ñoom ku dégg ku naan aqbil aqbil xayzum yonente bi alayhi salaam dégg xayzum xamul kuy xayzum ci jullit ñi mu laaj ko jibril jibril na ko ci malaaka yi la kon malaaka yi ñëw nañu xeex ak jullit ñi ñu dóor yéefar yi rey ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk te juróom-ñaar fukk ñu rey du n'importe qui ci ay kàngaam lañu rey dàqi leen ba ñu daw waqat bàyyi fa seen alal am xew-xew bu am foofu mooy mbiru alal ak nu mu mën a euh, déstabiliser jullit ñi mbiru alal bi yàlla wax ne yasalunaka anil anfaali qul anfaalu lillahi wa rasul mooy li ñu war a nag léegi jël ci yéefar yi ci alal jooju ñu indi woon yor ko ñu war ko jël ñoom jullit ñi mu nekk seen ngañaay nekk butin de guerre loolu commencé causer problème ñenn nekk di dajale loolu ñenn ñi topp yéefar yi dàq ji leen ñenn ñi escorté yonent bi alayhi salaatu salaam pour bañ ku ko laal biñ dajalee dajale dajale dajale nag ba ñëw toog ñu ne léegi léegi lii nuñ koy def ñu doon dajale ñun ñoo ko dajale ñële na ñun buñ dàq jiwul woon yéefar yi du ngeen ko mën a dajale ñi ne ñun tamit dañ nekkoon di. di escorte yonent bi alayhi salaatu salaam mu commencé indi féewaloo ak coow gis nga au début balaa alal di ñëw jàmm moo fi nekkoon cohésion moo fi nekkoon jàppalante pour xeex moo fi nekkoon mais bu alal ci ñëwee rek problème commencé am mooy wane ne kon alal fitna la moo tax léeg-léeg ñun ñu koy séntu ci suñu daawa suñu liggéey bi ñuy liggéey lislaam naan moyen moyen moyen di ko joytu di ko jàmbat mais yàlla moo xam di tax sottiwul moyens yi ci benn anam bi yàlla moo xam li tax muy nekk par tuuti tuuti li ñu naan tepp-tepp moo gën yuréet yàlla moo xam li tax muy def loolu bis bu jekki-jekki woon daawa bi ñuy daawa di woote ci ahlu sunna ay milliards commencé di sotteeku wallahi di nga gis leneen lu bokkul ak li fi nekkoon di nga gis loo xam ne lu wute ak li fi nekkoon problème yu bëree bëree bëri bëri alal dina ko indi ndax alal fitna la alal fitna la baaxul ci bakkanu doomu aadama nit ki gën a dëggu alal mën na koo soppi ndax day fitnaal doomu adama du caagante nit ki dafa dëgguwul moo tax mu fitnaalu ci alal ji mais doomu aadama ni ko yàlla mooñee moo am faiblesse ci alal zuyina lakum xubbu shahawaati wala zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaai walbanina walqanaatiri almuqantara min aldahabi walfidda yàlla moo ko mooñaale ak doomu aadama zuyina linnaasi la wax lu yàlla mooñaale ak doomu aadama la mu bëgg ko alal jooju noonu kon loolu commencé nekk problème yàlla teggi ko ci seeni loxo ne leen ne yonent bi xulli xulil anfaaru lillahi wa rasul bàyyi leen ko ak yàlla ko yonentam yàlla yon ñu séddale ko te yéen ngeen ngeen ngeen ngeen defar seen diggante fattaqullaha wa aslihu daata baynikum ragal leen yàlla te ngeen defar seen diggante fexe ba dara bañ koo yàq alalu àdduna bu mu yàq seen diggante indi ci ay problème loolu tamit di wane ne ñépp ñu ànd di liggéey ci lislaam nañu fexe ba alalu àdduna bañ di leen boole non seulement ci jël seeni matuwaay lu tax problème mu alal di am seen diggante du am beneen bi mooy bis bu demee ba am ñu jéem a trouver ay euh, terrain d'entente ak ay mbir yoo xam ne dañ koy jëfandikoo pour jéem a fexe jubóole ak dàq lépp loo xam ne fitna la ci sababu alal ci sababu alal ndax saxaaba yi daan ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam seytaane jéem na leen jaar foofu mais yàlla moom moo gaaw tëj bunt boobu te mi ngi ko jaaree la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam cër bi ñu ko jox ak kilifa gi mu nekk ci ñoom kilifa loolu moo nekkoon chance ci saxaaba yi ba tax alal jooju yàqul ci seen diggante moo tax kon des fois mbooloo am kuy nekk ci biir koo xam ne ñépp dañ koy rus wekk ko respecté ko ba bu waxee ñépp déglu ko da ciy baax ndax mooy tax bu yenn wute yi amee bu jógee wax nit ñi déglu ko mais bu ci ku mel noonu amulee problème la ndax ku jug wax dañ lay féetale fenn ku jug wax ñu féetale fenn léegi kan mooy ki nga xam ne nag moom bu waxee ñépp déglu ko loolu boobaa problème lay doon kon li moo nekkoon sans saxaaba yi di wane tamit ne ni yonente bi alayhi salatu sa meloon ba tax ñoom ñëpp mën koo déglu bu waxee ku nekk xam ne li mu wax sa njariñ la kenn bañ a jàpp ne dafa wax ngir njariñu di wala ma sàmb wala ma dem ba day wane tamit ne boo nekkee njiit bëgg aussi nit ñi xoolee la bët boobu da ngay njaaxaanaay foog nga nangoo jël auteur foog nga nangoo xañ sa bopp foog nga nangoo sacrifier lu bari ci yow ba mbooloo mi xam loolu ci yow ba tax boo waxee ñu am ci yow kóolute mën laa déglu mën a bàyyi loo xam ne sax lu nit ki bëggoon la mu pare pour sacrifier ko ndax def li nga wax ndax jàpp ne mbaax mi ngi ci loolu kon képp kuy li bëgg a nekk leader war nga jéem a fexe ñi nga jiite ñu am ci yow estime bu mel noonu ñu wóolu la kóolute gu mel noonu yombul nag mais am na lu bëri lu mu laaj ci sacrifice ci koo xam ne dafa bëgg a nekk leader moo tax nekk leader yombul nit mën na jiite nii ay nit nekk un président nekk un directeur nekk mais nekk le mot leader nekkul lu yomb lu jafe la ñu bëri su ñun li ñuy def rek mooy nekk directeur fu ñu war a signé nga signé fu ñu war a defee rapport nga def rapport loolu moom wàllu bureaucratie la mais nekk un leader problème de rapport la rapport la relation humaine la sa diggante ak nit ñi la jëflante la bët la bu la nit ñi di xoolee ak nu la nit ñi di jàppee loolu nag lu nit ki di togg ci boppam la ay qualité la yu nit ki di meloo loolu yonente bi alayhi salatu moom yàlla defaloon na ko ko mu nekkoon force ci moom loolu tamit day feeñ day répercuté wu ci mbooloo mi ndax ku mel noonu bu jiitee ay nit noonu mu mel dafa am lu bari lu muy def ci mbooloo mi ndax fitam ak njàmbaaram ak dalam dafay feeñ ci mbooloo mi day mel ne da koo wàll ñi mu àndal ndax lu situation bi ñàng-ñàng nga gis ko mu ànd ak dal toog di waxtaan di déglu nit ñi di wax comme dara xewul loolu yow dalay may fit mais bu doon màkk dañ ne génn nañ ñu ne dégg ne junni nit mu commencé pat pati di tëb di dal naan gaa yi nu ñuy def te ñoo daw te ñoo dellu ah affaire bi garaaw na de ñàng na de situation bi ah man dal sëñ bi xam nga lan la bàyyil man ma ñëw dellu ma de boobaa gars yi dañuy tasaaroo fu fu fu waay xam jëm sax wala la mais bu dee dégg na situation bi changé na mu gaawantu anticiper changer stratégie. sóoraalewul woon lii lu bees bett na ko dal na ci kaw mu mu changé situation bi moom tamit jëlaat taxawaay yu tollook li nga xamante ni situation bi laaj na ko ci ni mu ko gérer loolu day wane ne kon qualité leader dëgg dëgg dëgg dafa am solo loolu yonent bi alayhi salaam wane na ko fii bi problème alal yi ñëwee tamit xam nga ñu xam ne moom soxlawu ci dara lu mu ci jël ci nit ñi la koy delloo tax na ñu bàyyee mais bu doon bu ñu ko ko joxee mu aakimoo ko jël ko dem jox ko njabootam bàyyi jullit ñi ci ñàkk. bu boobaa bu ñu ja dajalee alal ci mu naan leen bàyyi leen ma séddale ko gaa dañ naan noo man loolu darul sama xel waaw man daal sama lii ma jël nii du ma ko jox kenn parce que danaam su ma ko joxee daf koy jël lekk ko mais xam gu ñu xam ne soxlawu ci dara moo tax ba leen yàlla ne bàyyi leen kooku yonant bi mu séddoo séddale ko ñépp daal di toog bàyyee ak moom ndax xam nañ ni li yitteelu ko kon loolu qualité la confiance la relation boobu confiance la mooy tax kon ñu nit ñi mën la déglu déglu bu mel noonu alayhi salaatu wasalaam mais nag tentation bi mi ngi fi lu jar bàyyi xel la mu jëmmi alal ji ci boppam jëmmi alal ji ndax bu duggee rek am yu bari yoo xam ne mën na ko def te am na lu ko ci yàlla jot a xupp wala lu mu ko jot a jubbanti te jubbanti la boo xam ne yàlla moo ko def ci coobareem ngir am lu bari lu mu jàngal jullit ñi ndax bi ñu jàppee 70 yi dafa waxtaanaat ak jullit ñi comme ni mu doon waxtaanee ak ñoom saa su nekk ci nan la ñuy def ñoom. ñenn si ñoom ne nañ leen rey ku mel ne Omar ku mel ne Saad ibn Muaz day siiw ñu Omar rek la mais Saad daf na ko man de wax dëgg yàlla ñii ndax dafa gis Saad Saad toog kanam gi changé mu ne ko lan la xanaa mbir mi li ci ni mu doxee daa am lu ci neexul mun ne ko waaw moom séentuwuloon ñu fiy nekk di téye ay prisonniers li mu gisoon mooy ku ñu jàpp ñu exécuté la ndax am na ñoo xamante ni du ñu rek ay simple prisonniers de guerre mais ay criminels lañu yenn criminels yi bu leen jàppee dañu leen di exécuté ñu tuddee criminel de guerre. mais du caagante ni ay prisonniers de guerre lañ dañ leen waroon liquider yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñeewentam ak nu xolam nooyee ci surtout rawatina Quraysh ni mu doon jëflante ak ñoom ute na ak nu mu doon jëflante ak ñeneen te loolu day wane ne nit dafa jege mbokkam nit dafa jege deretam te loolu nature la instinct la bu yàlla def ci doomu aadama mënu leen woon rey mu déglu ñi ko waxoon ci saxaaba yi te bokk nañ ci gën a feeñ Abu Bakar ne nañ leen jël ñu def leen ay prisonniers xaar seeni mbokk ñëw joxe ndàmpaay ñu bàyyi leen mu jëfe loolu yàlla wax ko ne ko maa kaana li nabiyin an yakuna lahu asra an yakuna lahu asra xata yusqina fi l ard turiduna arada dunia wallahu jël di am ay ay ay prisonniers li fekk jaamaarloowul ak noonam dugg ak ñoom ci xeex bu metti ba tuur ay deret ba dëgg féete kaw caaxaan jëm suuf ba mbir mi lijjantiku voilà ginnaaw loolu nag buy jàpp ay prisonnier mu soog a jàpp prisonnier mais fi ngeen toll nii ci état bi ngeen toll niveau bi ngeen toll tolloo ko leen fu ngeen di jàppee ay prisonnier di laaj ñu leen di jox ay xaalis fi ngeen toll ak seen noon mayu leen loolu ndax li ngeen ci jublu du dara dul àdduna te yàlla àdduna yitteelu ko yàlla li bëgg ci yéen mooy alaxira yàlla wax loolu yonente bi alayhi salatu wasallam ko jubbanti ko wàcce alxuraan jubbanti ko ba di ko wax ne ko bu dul woon ndaw laa kitaabun min allahi sabaq la massakum fi ma axadtum adabun alim bu dul woon ne yàlla ci xam-xamam bu jiitu xam na ne du leen du leen mbugal teggil na leen mbugal moom li ngeen def juróon na mbugalu yàlla ci yéen juróon na ko mais yàlla du ko def mais lu toll ni ngeen def nii njumte la loo xam ne juróon na yàlla mbugal leen loolu bu yàlla demee bay wax loolu jiital ci yonante bi alayhi salaatu salaam loolu lan lañ ci déggee lan lañ ci jàngee mooy lan mooy ak njàmbaar joo mën a def bul ci gis sa bopp gis nga yenn exploit yi yenn njàmbaar yi boo ko defee yaa ngi ci danger bu rëy rëy rëy boo boo ek boo réussir yenn affaires yi nga def ko ñépp naan waaw góor xamal ne jamono jooju nga gën a nekkee ci danger danger bi mooy lan mooy waaw góor jooju nga dem ba gëm ko gëm ne jàmbaar nga gëm ko sa bopp gëm ne li nga réaliser ni sa njàmbaar la wala sa xel mu rëy la seytaane foofu la lay naxe yàq sa jëf muy wan la sa bopp moo tax Ibn al di wax ne moo gën a dangereux sax ngistal ndax seytaane dalay xeex ci ngistal bu la bu la dàqee jotu la xeex la ci feneen fu gën a sew ngistal mooy nga gis sa bopp yëg sa bopp yëg ne li la gaa yi di taggee di la ko wax ci njàmbaar wala ci mbaax wala ci tabe wala ci bari xam-xam wala ci nàngam nga dem ba yëg ne ah dëgg la lu wér la bis boo àggee foofu seytaane yàqal na la mu ne ñaar yooyu mooy iyaaka naabudu ak iyaaka nastain yonente bi alayhi salatu salaam ak julli ñi dafa mel ne loolu leen yàlla bëggoon dàqal moo tax il fallait que am lu ñu def lu waral yàlla ñëwaat di leen mel ne ku leen di yedd di leen wan ne malgré def ngeen dale mais def ngeen ay erreurs yoo xam ne mi ngi leen ci corriger ba di leen wax ne bu ngeen moytuwul woon dina leen bëggal pourtant waxu leen benn yoon ne leen waaw ngeen góor nangam sangam déedéet mais il fallait que yàlla def loolu pour ñu xamaat seen bopp pour ñu dellu si sur terre pour bañ a jàpp nag léegi fi mu nekk nii duma nañ Quraysh kenn tawatu leen ay jàmbaar lañ nang gis sa bopp boobu li naan ku naagu daagu ku daagu ñu raw la loolu dalay yàqal parce que non seulement yàlla bugg ko ci jàmm bi gis boppam dalay yàqal sa diggante ak sa borom mais même ci wàllu àdduna boo commencé di gis sa bopp di yaakaar ni léegi li ma waroon def yépp def naa ko dalay yàccaaral loo il fallait kon lu mel noonu yedd bu mel noonu ñëw jóge ci yàlla pour ñu delloo siwaat seen xel ci seen bopp xam ne ay doomu aadama lañ matuñu mat bu tax duñu juum ba léegi dañoo am ay fay am ay matadi yoo xam ne mën nañ di def ay njuumte yu tax mbugalu yàlla wàcc ci ñoom wala seen noon jekku leen beneen yoon te loolu moo feeñ ci Uhud loolu yàlla doon leen ragalal ba tax mu leen doon yedd moo feeñ ci Uhud xëy na du ñëpp waaye ñenn ci ñoom biñ naagoo ci xot ba fi fépp yaakaar ne fi mu nekk nii moom ku ñu jaamaar loolu duma la yàlla subhaanahu wa taala nattu leen ñu duma leen ñu duma leen naam mënoo ko tuddee duma ndax xot ñeen dañuy wax ne defet la mais dëgg-dëgg fi fil fa du defet du defet ndax boo ko jàngatee da ngay gis ne mën nga wax ne dañoo dañoo match nul donte baat bi doo ko mën a jëfandikoo mais loolu moo gën a am ci xot maanaam jullit ñi fexe nañ ba minimiser dégâts yi ba def repli génn ci ger bi te pertuñ ci trop trop trop te boo ko seetloo tamit li indi loolu mooy rek bi ñu demee ba xeex bi di waaj a jeex lañu def benn erreur de stratégie erreur stratégique bu ñu def boo xam ne moo indiwaat lu mel noonu mais wa illaa xeex bi gañe woon nañ ko ba pare te tamit li yàlla def li tax mu def ko moo ko xam li tax mu def ko moo ko xam ndax bu ñu moyoon yonent bi mooy ndigalam ba noppi mu jox leen ndam dañuy jàpp ne ko mooy yonent bi alayhi salaam mooy yonent bi alayhi salaam mën nga koo la ci fekk loolu la ñuy jàpp kon loolu day daal di wu ci seen xel te loolu loolu danger bu rëy rëy la loolu tax yàlla yar leen pour bu ëllëgee lu mel noonu ñu bañ koo defati boo gisee mbir mi ni mu demee suñu borom subhaanahu wa taala dafa wan jullit ñi ne leen li nga xamante ne bi moom mooy wàllu ndimbal ak euh, ngañaay dafa am lu tax jullit bi di ko mérité woo mooy li yàlla wax ne yaa ayyuha alladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum mooy dafa am luy nekk ci nit loo xamante ne bi moom mooy tax mu mel mu mu mu mu am melokaan ba am taxawaay bu tax mu mérite ndimbalu yàlla mooy ñi yàlla wax ne waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min bacdi xawfihim amna yacbuduuna ni laa yushrikuuna bi cheya yàlla ñi mu dig ndimbalam mooy ñi nga xam ne dañ koy jaamu te dañ ko bokkaale ak dara gëm yàlla di jëf-jëf yu baax ci kaw melokaan boobu la leen yàlla diggéen ndimbalam saxaaba yooyu nga xamante ne ñoo àndoon ak yonente bi alayhi salatu wasallam keroog badr bépp melokaan bu tax ñu ñu mérité ndimbalu yàlla mi ngi woon ci ñoom ñaareel bi mooy situation bi ni mu demee dafa tax naafiq yi génn ñu ànd ci xeex bi kon seenu néewaay nekkuloon problème ndax ñi àndoon ak moom ñu dëggu lañ ñi àndoon ak moom ñu dëggu lañ moo tax seen néewaay nekkul problème ndax am na ci ñoo xamante ni ña nga Madina bu ñu génnoon dinañ yokk nombre bi mais fardool maanaam diisal lañuy ñuy gën a nekk ci mbooloo mi ka jariñ mbooloo mi kàttan loolu tamit doxalinu yàlla la ci façon génnin bi ñu génn doxalinu yàlla la ci façon génnin bi ñu génn beneen bi ci des mooy xamal bi yàlla xamal jullit ñi ci tàmbali lu teel ci seen première jaamaarloo ndax am na ay xasawaat yu jiitu yu ndaw yu jiitu Badr am doole daal bi tax ñiy wax mi ngi tàmbale ci Badar yàlla xamal leen ci ne seen gañaay delluwul ci seen lim ni mu toll du seen bariwaay mooy tax ngeen di gañe wala seen néewaay tax ñu leen di gañe loolu yàlla wan na leen ko ci Badar beneen bi ci des mooy taxawaay bi yonente bi alayhi salaam bi mu wax ne waalamu anna fiikum rasulullah law yutiicukum fi kathirin min al amri la anittum mooy xam bi ñu xam ne yonente bi mu ngi seen biir du leen topp ci seeni erreur mu leen di enfoncé ci ay problème mais daf leen di jubbanti teg leen ci yoon bi nga xam ne moo leen di indil réussite ci seen mbir loolu di wane ne kon leader boobu ma doon wax sànq chance la ci groupe bi tawfiqu yàlla la ci mbooloo mi ci groupe bi leneen liñ ci war a jàngaatee ci li nga xam ne mooy ghazwatu badr mooy day fekk léeg-léeg jaamaarloo ñàkk pexe lay doon mënta ñàkk mais des fois mënta ñàkk foog mu am jaamaarloo léeg-léeg nit ki du ko wut di ko chercher ndax yonent bi alayhi salatu wasallam même bi muy demee keroog Tabuk di xaar romain yi pour ñu ñëw mu def fa ñaar fukki fan muy 20 jours di leen xaar dafa wax ak saxaaba yi ne leen laa tatamannaw liqaa al aduw isalu llah al aafiya wa ida laqitumuhum fasbiru wa alamu an al jannata taxta zilaali suyuf bu leen mbébéta dajeeg seen i noonu ñaan leen yàlla mu musal leen bu leen mbébéta dajeeg seen i noonu la wax ndax dajeeg noonu deret war a tuuru fitna la te wóoru ba xam boo gaaree sa bopp ci fitna boobu di nga mën a dékku fitna bi wala doo ko dékku ndax di fitna bi léeg dina àgg ci niveau boo xam ne mën naa tiital xolu nit même ku dëggu sax mën na tiital sa xol moo tax kon bu leen bébata dajeeg ñoom ñaan leen yàlla mu musal leen mais bu ngeen demee ba mënatoo leen ci dara ba daje am ah bu boobaa na ngeen muñ muñ mu jëfandikoo na ngeen muñ baatu sabr te ngeen xam ne ku dee ci yéen yàlla dogal ko aljanna muñ googu mooy liy feeñaat tamit ci xaswatu badr ndax yàlla subhanahu wa moo xam ne balaa in tasbiru wa tattaqu la yàlla waxoon wa yatukum min fawrihim li yàlla waxoon ci ndimbalam buy ñëw dafa waxoon ne añ kay dina ko indi mais à condition que ngeen muñ ànd ak ragal yàlla muy sabr mooy sax ci say principe dëgër ci say principe woolu sa borom subhanahu wa taala para ba bañ a yox yoxi bañ a dellu ginnaaw surtout dëgër ci say principe la chaque ne fitna metti na trop yàlla nañ yàlla musal ci fitna mais surtout principe yi nga xam ne mooy diine ji nga xam ne moom nga gëm nit ki sax ci bañ cee dellu ginnaaw ndax ay fitna yàlla ne bu fekkee loolu am na te ngeen boole ko ragal yàlla ci li ngeen di def bañ a def lenn loo xamante ni lu génn ragal yàlla la yàlla dina leen dimbali. kon bokk na ci yi nga xam ne njariñ yi nga xam ne dañ koy déggee ci euh, ghazwatu Badr mooy néewaay boobu du problème bu fekkente ni ragal yàlla mi ngi fi. bu fekkee préparation bu am solo dëgg-dëgg mi ngi fi formation bu am solo mi ngi fi loolu tamit nekk lu sagal yonent bi alayhi salaatu salaam ci li mu doon sonn at ay ati at di ko liggéey te musul gis daanaka résultat bi ndax mi ngi nekkoon di préparer ay nit di leen former depuis Màkka def fa ak ñoom fukki at ak ñett ñëw nekk ma dina continuer ci loolu yàkkamtiwul résultat yàkkamtiwul dara di muñ ñu koy fitnaal di ko xas di ko di ko di bunu xatal ay jullit di rey ay jullit mu koy gis di sonal ko lool mu toog di muñ rek waaye gis nga biñ demee ba yàlla def résultat ak fruit di meññeentu liggéey boobu mu toogoon di ko liggéey ci diiru fukki at ak ñaaj ak juróom yooyu yépp badar keroog yàlla wan na ko ko yàlla wan na ko li nga doon sonn yépp ci gaa yi di leen di leen former di leen jàngal mi ngi nii feeñ na tey tey siggil nañ la tey siggil nañ lislaam mbool ak li seen mbooloo di néew néew yépp beneen mbir bi ci nekkat mooy defar bakkan day may doole jëmm day may doole day may kattan nit jëmm kàttan goo xam ne sax ay moyen jumtuwaayu matériel mënu ko faa àggale li tax mooy yàlla def bi mu def mu nekk ci weeru koor ndax première weeru koor mooy deuxième anne ci gàddaayu yonente bi alayhi salatu wasalam ci la yàlla farataal koor yonente bi alayhi salaam neuf ans la woor première année bi fekk koor waragul woon ci la doon dégal ñuy woor lu mel ne ashura waaye ci deux ci deuxième année bi yàlla farataal koor kon jullit ñi woor nekk ci weeru koor di weeru jaamu yàlla ba noppi war a nekk di taxaw ci toolu xare di jaamaarloog seeni noonu loolu di wane ne ndakate jaamu yàlla gi ak jëf bu baax bi benn carburant la boo xamante ni dafay suuxat dafay alimenter bakkanu jullit bi te boo ko suuxatee alimenté ko loolu ci li def force am yokk ko kàttan loolu bokk na ci moo tax kon yittewoo mbaax yittewoo jaamu yàlla ku bëgg jullit ñi am doole am kàttan dellu fa ñu nekkoon na nga góorlu ci yar leen ci loolu sa yitte warul nekk rek ci seen bëriwaay mais sa yitte dafa war a nekk ci ñaax leen ci ay jaamu yàlla te ku jàng histoire l'islam ba ci jamono yu mujj yi ci xilaafaat yi fi jaar ak jafe-jafe yi ñu am ak noon bi ñu jànkonteel yépp saabu bu jullit ñi baaxee mbaax nekk ci ñoom ragal yàlla nekk ci ñoom dañuy am kàttan saabu loolu néewee ci ñoom dañuy ñàkk solo ci histoire u lislaam yépp nag loolu mooy li ma sa am nga gis kon ci li nga xam ne mën nañ koo jàppee ci euh, mbir mii mooy ne ndakate kër gi nga xamante ni du këru dëkk ay xuuxalaate ak ay xëbalaate moo fa nekk mais kàttan newu fa ñu bàyyi ci loolu xel bu baax këru seytaane ak këru caaxaan xuuxalaate ak xëbalaate moo fa nekk moo tax dañuy faral di yittewoo lépp lu jëm ci nappaate lépp lu jëm ci wane kàttan wane doole pour bëgg nit ñi ragal leen xool ko tey àdduna bi ni ñi doxe ñi fi nekk ci ñi dul ay jullit par exemple bloc occidental bi ni ñu mën a tiitali nit ñi ci wàllu ngànnaay wàllu soldaar yu bari ay drone ay satellite ay lu ne wallaahi loolu eh, du dara ci ndimbalu yàlla mi ngi mel ne poussière boo jël sànni ko bu ndimbalu yàlla ñëwee du dara bu fekkee jullit ñi xam nañ loolu waaye malheureusement xamuñu ko dañ koy wan di ko martale ba nga jàpp ne ñii dañ yor ay armée yoo xamante ni kenn mënu leen a gañe xel sax xalaatul di jaamaarloo ak ñoom xel sax xalaatu ko dañ lay détruire waaw léegi yàlla ci xarañam waruñu Afghanistan Afghanistan dafa am ñaari leçon yoo xam ne ngeen baal ma ma yokk ko ci waxtaan bi war nañ ko ci jàng ci mbiram Afghanistan bi nga xamante ni rey nañ seen président bi bëgg fa teg beneen président bëgg fa dëgëral communisme Union soviétique dugg ci ñëw envahir Afghanistan xeex ba jox jolli ñuy jàppante dafa am ay jullit yoo xam ni alxuraan ak sunna lañ gëm. ay nit ci daaral lañ yoo xam ne ay daara ñoo leen formé ñu leen di tuddee taliban taliban ci làkku urdu ci làkku pakistan yi mooy jànkati xam-xam kon du ñu ay soldat yoruñu armée yoruñu ay drone yoruñu hélicoptère yoruñu ay lance missile ñooñu ñoo jug ne lii dañ koy lijjantil seen bopp dugg ci xeex bi jàpp soviétique yi duma leen naam américains yi ñu ngi ci doon dugg di profité ci loolu pour gën a néewal doole soviétique yi waaye njàmbaar lañ wane foofu boo xam ni jamono yooyu union soviétique union soviétique ñoo gën a maanaam soviétique yi nga xam ne Russie ñoo leen Russie la mën nañu wax ne Russie la seeni soldat ñoo gën a soxor américain yi ñoo gën a sadik américain yi ku jàng seeni guerre ak guerru américain yi xam ne ñoom ñoo gën a sadik ñoom dañuy drogué seeni soldat Tchétchénie noonu lañ fa def dañ leen doon drogué ay booy lañ jël drogué leen jox leen ay euh, char de combat dugg ci di massacrer du ñu taxaw lu nekk seen kanam ñu massacré ñu duma leen foofu duma yu metti taalibaan yi jël réew ma unifié ko bi soviétique yi génne ña fa desoon ci ay communiste ñu duma leen ñeneen ña fa desoon tamit sax ci ñuy tuddee ay chef de guerre ñu duma leen unifié ko ci 11 septembre bi américains yi profité ci loolu demaat fa duggaat fa def coalition international ba tey jii nii ñi ngi xool nu ñu mën a dawee génn réew ma bàyyi ko borom waa waa réew ma ndax mënaluñ leen dara lu ñu xam def nañ ko bi ñuy ñëw foofu di di di di di di di envahir Afghanistan bombardement façon xeex bu bon lañu doon xeex foofu boo xamante ni dañ dañu dañu dañu dañu yaakaaroon bu ñu paree kuy doxati wala kuy jugati di naan da ngay jéem a xeex ak ñoom dootu fa nekk nanguwu ñoo nekk ci suuf ay chef de guerre lañ jëm financé leen pour ñu xeex ak taliban yi ci suuf ñoom ñu nekk ci kaw di bombardé bombardement yu bon bon bon bon li mel ne bi ñuy jël Magari Sharif Magari Sharif benn dëkk bu ngand la bu nekk ci booru frontière u Pakistan ñu jël Afghanistan gisatuñu taliban yi ñu daal di ñëw wàcc nag installé wu def seen i base jamono jooju la gars yi commencé di fël di génn xeex ba daal di taqarnaase waat ñëf ñoom ñu ne fa ñoom ak seen alliés yi nga xam ne ñooy européens yi ak ni ñu nekkee ñu développé ci wàllu armement ak lépp lu jëm ci ngànnaay drone yi ñu yor ak ña yoruñu loolu xam nga lu ñu yor ay kalachnikov lañ yor ay kalachnikov ak ay obus yoo xam ne dañ koy jël di ko def ay ay euh, nu mu tuddati ay mine ci loolu ba léegi ñu ngi xeex ak ñoom mënaluñu leen dara ci jamono yu mujj yi Biden bi mu ñëwee daf ne moom day jël ay militaire am dem parce que xeex boo xam ne du jeex ñi ngay xeexal du ñu bàyyi mënaloo leen dara loolu day wane ne jullit bu gëm yàlla dëkk dimbali ko yàlla kenn mënu ko dóor kenn mënul ci moom dara. ndax dafa gëm ne bu deewee dafay dem aljanna loolu nag lañu bëgg a faxas ci boppu jullit ñi gëm loo leen ne guerre bi ngeen di guerre défendre seen diine ñu koy tuddee jihad kirim la terrorisme la waroo leen ko sax xalaat te ñoom ñuy guerre ñoom di rey ay millions de personnes ci seen i principe bu démocratie ñoom jàpp ne ci turu démocratie war nañoo rey ay ay peuple war nañoo rey ay nit yow li nga gëm yow gëm ne yàlla moo la ko jox moo mooy sa raison d'être ci kaw suuf ñu ne la benn weñ sa ñoo ko cee rey naam doo dem di rey ay jàmbur yu seen yoon nekkul di rey aveuglement anarchiquement di def yoo xam ne ay groupe jël ay ngànnaay dem fii mais bu ñu amee li nga xam ne mooy xilaafa yàlla na ko yàlla delloo si dañuy sàmm suñu diine sàmm suñu communauté ba kenn du ñu yëpp ndax ñoom ci turu ay liberté ak ay démocratie yoo xamante ni soi-disant dañ ciy dem fekk ci ay réew yoo xam ne tooñuñu leen defuñu leen ñu envahir leen Irak a ngi nii rey fa ay millions de personnes façon ñaawteef bu nañu def ko fa jàpp ne li ñuy def droit la kenn ñemewu leen a wax rien du tout loolu civilisation la démocratie la liberté la waaye jullit bi moom bu ñu ko doon tooñ sax muy défendre boppam lu mel ne palestinien bi ñu ne ko terroriste nga israélien bi nga xam ne moo koy attaqué moom li muy def protection la protection lañ koy tuddee dafay protéger boppam di protéger réewam te moom moo ñëw tooñ si de jël ay suufu jàmbur mais moom day protéger boppam kële di défendre boppam ñu ne moom terroriste la ger médiatique boobu ñu guerre jullit ñi xeex leen a xeex a xeex a xeex ci loolu ba ñu nangu loolu surtout suñu complexe yi nga xam ne tubaab yi leen yar lu tubaab yi wax ñu nangu ko lu tubaab yi wax ñu dégg ko tubaab yi jàngal ne li tubaab yi wax la ñuy wax même chose lañuy wax boo waxee ñu la no loolu terrorisme la faut pas ceci faut pas cela mais ñaawteef yi tubaab yi def ci àdduna bi xanaa ñoom gisuñu ko ñaawteef yi occidentaux yi dëkkee ci àdduna bi xanaa gisuñu ko ñaata nit lañ fi rey lan lañ fi def xoolal libi kan moo rey Xadafi xoola Sarkozy li mu def Xadafi financé ko jox ko ay millions mu def campagne am coow li commencé mu xam ne kooku bu waxee affaire am day yàqu mu gaawantu profité ñu dem Libye ne soulèvement moo fa am Xadafi ngay rey nit ñi. Birmanie te du ñu ngi nii rey nit ñi kan moo fa dem envahir Birmanie ñu dem envahir Libye jàpp Xadafi jox ko ñi nga xamante ni ñoom la doon xeexal ñu rey ko ci mbedd mi comme ni ñu reyee xaj ñëpp toog di seetaan ana ko defoon mi fi di dox ay soxlaam kan moo ko àtte nañ ko yóbbu ci yoon. ana suñu intellectuel yi fi toog di wax ay droits de l'homme ak di tànqal nit ñi bu ñu waxee ci jullit ñi ñu jóg ku ne jóg di wax ku ne jóg di jéem a jaay ne da ñaaw làmmiñ te bu dee occidentaux yi la ñu ne patt doo leen gis ay complexe lañ li ñuy wax xamuñu ko histoire u àdduna bi boo ko jàngee xam ne li fi nekk naxaate la naxee la seen kattan ak force bi ñu wane wallahi fi ñu koy teg àggu fa bu jullit ñi melee ni ñu war a mel dëgg defar seen diggante ak seen borom dinañ amaat kàttan nga ñu amoon te kenn mënu ci dara seen pexe yi ñuy def ak technologie yeeg naxaate yeeg lépp wallaahi bu rien du tout ci kanamu yàlla subhanahu wa taala mais jullit ñi nag ñoo ñoo xamul lool ñoo nekk di nelaw ba léegi moo tax kon Badr bu ñu ko jàngee xam ne enseignement boobu lañ ci war a tiire mooy ndimbalu yàlla mooy mbir mi dëgg-dëgg fa lañ war a teg suñu bët fa lañ war a teg suñu bët te ci loolu lañu war a jéem a fexe delluwaat mbooloo mi mën naa néew moyens yi mën naa néew mais bu fi ndimbalu yàlla nekkee ñu mel ni neex yàlla ni yàlla bëgg amul ku ñu mën a dara kenn mën a ñu dara kon loolu lañu mën a wax ci li nga xamante ne mooy Badr liñ ci waajaloon sax bëgguma ci tënku di ko xool ndax waxtu bi comme xas na ba gàtt dama ne naa ko résumé hada wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala sax bi sahbihi ajmain Eh, alhamdulilah ñu ngi wax alhamdulilah saa suñ koy ñaanal yal na ko yàlla dëgëral yal na yàlla bëril ñu mel ni moom yal na yàlla yokk xam-xam bi dëgg yàlla eh, dinañ njëriñ nañ bu baax ci li nga xam ne moom lañu fi jëlee li ñu tànnee moo ba tudde woon ko xaswatu badr duruusun wa ibar defe naa ne jëlee nañ ci dars yooyu ak ibra yooyu Eh, xamal nañu ne eh, li waral jullit amoon ndam ci xare boobu mun nañ ko tënk ci ñeenti mbir xusnul qiyaada xusnul inqiyaad quwatul aqida al istimaatu fi sabilil ñu am général bu njiit bu baax ñoom it ñu nekkoon nangu ku jiite boole ci nag ñu amoon ngëm-ngëm bu mot arab yi dañuy wax naan wa man takun quwatal imaani nasirahu fa azamu la xatri haynun xiina yastadimu képp koo xam ne dana am imaan bu gëm bu dëgër mu ne musiba wala mbir la mu lay réere yow boo jàmmaarloo ak moom dafay nekk lu woyof kon loolu moo leen kon ni ngi sant mbokk yi fi teew yëpp di leen gërëm di leen xam ne waxtaan yi des na yeneen incha allah suba am nañu fi beneen bu fi am Oustaz Diagne Dramé moo koy def mu koy def ci al ixlaas incha allah waaye Oustaz nag ñu yor organisation bi fii ci jàkk ji yor conférence bi dañoo kontaan ci waxtaan beneen dañoo bëgg weer bu ngay ñëw di leen defal benn laas incha allah noonu lañ ko bëgg a toppee ba mu waaye nit boo ko sama jàkk ci nee nañ mbokk yi nekk ci ji te sol ni ngeen gisee jàkk ji lu ko mel tax mu mel ni yéen la seen loxo ngeen ci doon dugal kon tamit ñu ngi loolu lu waaye am rek insha allah mu dimbalee leen ko hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi waaw insha allah ñu ni bàyyi wax ma fàttali pour maanaam suba sas jaaji moo ñëw def ci al ixlaas beneen semaine bi si topp samedi bi docteur Bamba Mbengue moo fi ñëw muy def u salaf fi ramadan asalafu saleh nan lañ doon dundee ci weeru koor bu ñu demee ba ci dimanche dañuy am fii xaawila mustadira table ronde lay nekk. Ah, premier mai ñu koy def ci wàllu liggéey dañoo tàmm teg bi rek mu ànd ak bi incha allah. après beneen dimanche bi. kan moo koy taxawee. ah bis ni ngeen. Galaajo. Galaajo ba Oustaz Ibrahima Kane. ak docteur Abiboulaye ñoo ñoo koy def incha allah semaine bu mujj bi Sidi Yahya Kunte incha allah moom fi ñëw moom mu def euh, waxtaan kon incha allah saa bu ñu amee waxtaan rek dinañ leen fàttali thèmes yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala jagaay bi. la bokk ci jotaay nga xam ne suñu borom da koy damoo ci kaw di ko woon malaaka yi naan xoolal sama jaam yi wàccee ci ñoom yër nga ne yàlla nañ ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu koy réparé